Vous athlètes des Jeux olympiques du groupe scolaire Maman Ami, jurons de jouer dans le civisme, dans la paix, la loyauté, le fair play et le respect des règles du jeu. Comme le disait le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel ce n'est pas de gagner mais de participer. Vive les Jeux olympiques, que le meilleur gagne. waaw ñoo ngi ak euh, ki nga xam ni mooy le coordonnateur euh, de l'activité olympiade ci fête fin d'année scolaire groupe scolaire euh, Maman Ami ñu bàyyi ko rek mu nuyu présenté wu sëñ bi ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay vraiment. olympiade bi nekk na loo xamante ni lu am solo la kenn ku nekk xam na ni l'essentiel c'est de participer comme niñ ko waxee mais li ci amoon solo rek ci biir olympiade bi mooy xam nañ ni Sénégal fii ak 2026 da koy organiser bu neexee yàlla te xam nañ ni olympiade bi am na ay support pédagogique yoo xamante ni moo ci nekk waaye tamit surtout ñu jàngalaat xale yi ci wàllu civisme ak li nga xamante ni moom mooy citoyenneté xam nga jeu yi nga xamante ni moom lañ doon defal xale yi ku ñëw rek dangay ngay defe xale yi dañuy jouer pour jouer mais dañu xam ni jeu bu nekk rek dafa am benn support pédagogique boo xam ne moom la am am nañ fi cinq jeux yoo xam ne def nañ ko def nañ fi lu ñuy tuddee relais kangourou ku nekk xam na ni kangourou c'est un animal boo xamante ni moom buy dem dafay boot doomam du ko du ko bàyyi ñu jàngal xale bi ci loolu maanaam esprit de partage maanaam vigilance ak surveillance ci relais kangourou bi def nañ ko def nañ lu ñuy tuddee remplissage bouteille boo xamante ni l'objectif c'est quoi mooy day tax xale yi am esprit de compétition seen biir mais compétition boo xamante ni dafay nekk bu am objectif def nañ fi loo xamante ni au drapeau la nga xamante ni dafay jàngal dalay jàngal tal dal ak teey xale yenn saa yi dañuy mën dara mais yàkkamti mooy tax duñ ko man def nañ fi saut à longueur ba nga xamante ni les élèves de CM2 souvent dañ koy def ci li nga xamante ni mooy activité sportive yi nga xamante ni moom la ñuy def ñu terminer ko ak li nga xamante ni moom moo doon moom moo doon ay lancé yi nga xamante ni moom la préscolaire bi doon def en grosso modo daal juróomi jeux yooyu mooy li nga xamante ni moom la ñu am mais juste rek di ñëwaat ci objectifu olympiade bi pour ne pas monopoliser olympiade bi activité boo xamante ni activité sportive la à quatre vingt pour cent et xale yi dañuy jongante seen biir moo am esprit de compétition mais l'essentiel c'est de participer que que le meilleur gagne ci biir nag li ci ëpp solo nag ci biir di nga ci xam xale boo xamante ne xale bu muus la boo defee psychopédagogie de l'enfant connaissance ak besoin de l'enfant di ak milieu d'origine di nga xam ci xale bi xale yi tàyyeeloon dinañ ci mën a sawar xale yi nga xamante ni ëllëg ñooy nekk imam mën nga leen ci biir xale yi nga xamante ëllëg ñooy nekk ay sportive wala ñu nekk ay journaliste wala ay nangam mën nga ko détecté à travers des jeux à travers des communications ak yeneen ak yeneen kon activité boo xamante ni activité bu noble la activité bu am solo la di ñaan yàlla Sénégal bi koy organiser 2026 yàlla na ci yàlla def une réussite totale. def ni moo tuddee relais kangourou ku ne xam na ni kangourou benn animal la boo xamante ni dafa am fi benn poche buy dem. du bàyyi doomam fii la koy boot di dem yoonam léegi nag dañuy jàngal xale bi bu nekkee ci école bi moom warul dem bàyyi xaleem bàyyi moroomam donc lu ça part lu ñuy tuddee union entente solidarité moom lay jàngal xale bi parce que kangourou buy daw nii lay dawee ku ne xam na ko dafa am benn poche ci lay dugal doom bi donc jeu bi nag variante la ñu tropicaliser ko indi ko nii ñu tuddee ko relais kangourou dafay jàngali nit ni mu mën a amee li nga xamante ni mooy bu amee njaboot mu bàyyi ko xel mu téye ko waaw jeu bi moo nekk ni muy relais kangourou. bonjour maman. bonjour euh, mon de la de chez maman Ami comment euh, voilà, vous êtes euh, euh, dans cette cérémonie de fête de fin d'année euh, 2023, fin d'année scolaire. et cette année a une belle les Olympiades. comment la manifestation le déroulement? magnifique. Je dirais que Madame Chor a eu une idée géniale en instaurant ce mode de, de fête. Une fin d'année euh, basée sur le sport et un encadrement pédagogique euh, très intelligent. C'est ce que je, je, je me répète peut-être, mais ça a été surprenant, très surprenant et, et, et bien. Moi, je vous félicite. Et cela fait des années, deux années déjà, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de partager avec vous. J'ai vu l'amour que vous portez à l'école, à l'enseignement, aux enfants, et euh, cela me rassure. Quels sont vos sentiments euh, quand vous voyez euh, les enfants en pleine euh, synergie, euh, ensemble au niveau des jeux et la participation euh, aussi des, des parents d'élèves et l'encadrement euh, pédagogique, qu'est-ce que ça vous fait Je pense avoir à peu près dit ce que j'avais à dire. Les parents sont présents. Le, le milieu euh, des enseignants sont, sont bien, corrects. D'abord, chez Maman Ami, les enseignants sont très corrects. Et ils respectent tout le monde, euh, beaucoup de respect pour les élèves et pour les parents. Et euh, le sport euh, est la base de tout. C'est un développement de l'esprit, du corps, et ce qui permet à l'enfant de mieux s'adapter au milieu, de respecter qui que ce soit. waaw tey ci euh, fête euh, fin d'année bi ñu gis ci innovation de taille innovation bi aussi mooy euh, jeu de l'esprit dellu ñu gën ko miin ci Jeunes en herbe tey gis nañu xale yi ñi nga xamante ni ñoo nekk au niveau du collège la quatrième ak CM2 bi doon jongante d'où vient cette idée ci jeu de l'esprit boobu. en fait le Jeunes en herbe c'est pas une activité nouvelle au niveau de l'école ça a toujours existé et lorsque je suis venu cette année je vois que ça manquait de d'épanouissement. Donc il faut une activité pour fédérer les élèves, surtout de l'élémentaire, la classe de CM2, parce qu'on les prépare à venir l'année prochaine au collège. Donc il faut les intégrer, parce que comme il n'y avait pas de classe de troisième, donc pour avoir euh, quatre équipes, donc il faut quatre classes, d'où l'esprit maintenant, d'où l'idée du mois de prendre les élèves de la classe de CM2, pour qu'au mois se faire un tournoi de, de trois matchs. chaque, chacune des équipes. pour qu'à la fin, voir les, les, deux meilleures équipes pour, pour, pour, jouer la grande finale et les deux autres, la petite, la petite finale qui a été déjà jouée. Et la journée d'aujourd'hui eh, était une journée de, pour immortaliser et, et, et, montrer également au public, aux parents, que l'élève à l'école, il apprend aussi, mais également il y a des activités d'épanouissement. C'était ça l'idée générale. Histoire de familiariser euh, l'élémentaire et le collège et de les préparer euh, pour leur montée euh, les années à venir. Surtout ça, parce que très souvent dans l'enseignement, euh, on a tendance à faire une cassure et qui n'est pas normale. Parce que dès que l'élève quitte la classe de CM2, on lui fait comprendre c'est comme s'il vient de commencer un nouveau cycle. C'est vrai, mais il y a un rapport énorme. Toute la base, pour dire les trois quarts du les élèves l'ont fait à l'élémentaire. Donc pour leur faire comprendre, vous pouvez concurrencer avec les élèves de la 6e jusqu'en 4e. Pour raison, pour, pour, preuve, vous avez vu, la finale a été jouée avec les élèves de la classe de cm et de la classe de 4 J'ai été impressionné de voir à chaque fois les matchs, les élèves de CM2 battaient les élèves de 6e et de 5e. Et la, et la finale était trop serrée pour une petite question de 40 Ouais, c'est ce qui a fait les élèves de 4e ont remporté la finale. Et ça leur, ça, ça courage de, de, de rester à l'école, mais également de dire qu'ils ont les capacités de faire une, un très bon cycle. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, di sargal ñëpp di nuyu parents d'élèves yi fi ñëw fekkee sunu feetu olympiade bi euh, c'est vrai que cette année dañoo choisir def olympiade pour euh, diversifier par rapport ak li ñu doon def. Euh, Olympiade nag booy xool euh, kii activité bu yàgg la bu ñuy faral di def mooy Jeux olympique yi dañ ko contextualiser nag ñun adapté ko suñu cadre école euh, ba nga xam ne on a voulu faire apprendre aussi aux élèves quelque chose boo xam ne dañ ci jàng pour yeneen perspective yi ñëw parce que boo xoolee France war na organiser 2024 Jeux olympiques 2026 Sénégal moo prévoir incha allah organiser olympiade 2026 yi ñuy ñaan yàlla balaa boobu ñu ñu àgg ceeg jàmm ak salaam euh, maintenant nag ñuy préparer xale yi ci loolu nekk ci dynamique boobu bon def leen dans un esprit de sportivité te tëjee ko en beauté daal pour euh, fête fin d'année scolaire bi loolu moo tax ñu organiser olympiade bi. école bi ñu ngi ko créé en 2007 euh, fekk mu ngi am préscolaire boobu temps sax maa ngi nekkoon ci bâtiment ya kii be euh, immeuble multicolore yi immeuble mauve bi foofu laa njëkk commencé en 2007 amoon euh, préscolaire kese avec le temps élémentaire bi dugg macha allah moyen bi tam dugg classe yi vraiment di yéeg ba nga xam ne léegi moom ñu ngi am préscolaire élémentaire ak moyen donc euh, ci diggante bi 2012 lañ ñëw fii waaw 2012 lañ ñëw fii ci école bi. ci enseignement général sénégalais la ñuy def mais dañ ci boole informatique parce que informatique dafa xew dafa nekk xarala yu bees yi am ci àddina dañ ci boole aussi anglais dañ ci boole aussi éducation religieuse éducation religieuse musulmane. waaw éducation religieuse musulmane arabe waaw dañ ko ci boole bu ko defee ci choix wu parent bi daal lay dépendre ba nga xam ne éducation religieuse bu bëggee rek ñu dugal ko enseignement doomam sinon depuis le préscolaire dañuy def euh, dañuy def euh, informatique dañuy def aussi anglais waaw. waaw ñaan parents yi vacances yaa ngi jot ñuy ñaan yàlla ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin Euh, ñu fexe tamit euh, vacances yi mu nekk ay moment de repos moment de dal moment de euh, communion avec la famille plus di ñaan aussi vraiment vacances yi ku ci mën a dugg aussi alxuraan dugg alxuraan persévérer bu ko defee boo ñëwee boole kook jàngum nasaraan bi day nekk vraiment lu baax pour personnalité nit ki waaw maa ngi remercier ñëpp di remercier di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur di remercier sama jëkkër di remercier sama famille di remercier sama belle famille di remercier sama xarit yëpp sama àndandoo yëpp di remercier sama équipe pédagogique waaw équipe pédagogique bi moom macha allah je leur euh, je les remercie ci kaw ba ci suuf. maa ngi remercier ñëpp ñu munoon a teew ñu mënul woon a teew en tout cas majorité bi ak fête tabaski yi ñu joge nii euh, présent nan donc maa ngi leen di remercier di leen féliciter vraiment di leen ñaanal euh, vacance yu jàmm ak salaam. waaw Leral TV ñu ngi leen di remercier d'avoir fait notre couverture médiatique di remercier. Euh, tout le personnel di la remercier yow tam oustaz yaa si jàpp pour que leeral mën ñu couvrir parce que boobu ba tey yaa ngi fi ma sama euh, compagnonnage ak yow yàgg na ça fait dix ans quand même depuis 2012 ba tey <laughs> depuis 2012 ak maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm oustaz di gërëm Matar Thiam idée olympiade bi moom la euh, lu lëkk lekkee alal na ko gërëmee cooy oustaz euh, olympiade oustaz oustaz Matar Thiam ba ma ko ne dama ko bëgg def fin d'année mu ne ma madame Thiaw defal olympiade olympiade dina neex ma ne ko non olympiade war na jàll donc boobu ba tey nag ñu ci ñu ci ñu ciy def ay séance ba yàlla dogal mu nekk tey vraiment un produit fini boo xam ne euh, tout le monde a apprécié euh, je remercie vraiment tout le monde et à l'année prochaine